di jiital ci nuyoo bi sunu sang bi teew ñu koy ziar Mbàkke di ko nuyu di ko yóbbante sunu ziar ci cheikh bu tedd ba cheikh Muntaxa Mbàkke yàlla na ko fi sunu borom bi yàggal yàlla wéral ay cëram yàlla defal ko kéemaanu gudd fan loolu de lañ koy ñaanal Euh, xam naa kàddu yi moom du mën a gudd ndax sëñ xaadim xam naa dafa xër rek waaye comme ni ko Cheikh Ndiaye di waxee arab ba dafa waxoon ne tilka athaaruna tadullu alayna mu ne lii nii ay jeexit la yoo xam ne bu ngeen ñu bëggee xool xoole leen ñu jeexit yooyu mu mel ne que ne jëfiinu Cheikh Abul Baraka bii di taxawaayam bii macha allah ñu ñaan suñ borom mu yàgg lool te yàlla nangu lépp yi tamit nag mu mel ne ne bu amee lu muy wane taxawaayu sëñ xaadim lay wane waaye tamit nag taxawaayu daara ji ndax dañoo wax ne iqra yomb na waaye ba ca jafe mooy bismi rabbika jëf ji bu sellee kon résultat yi am ëllëg ak nu mu mënti toll rek du la jomb ndax dafa mel ne dafa am lu muy wane ñu ñaan suñu boroom mu dollee dëgëral taxawaay bi dollee barkeel liggéey bi di sant ñi nga xam ne yëpp yi tamit nag bàyyi nañ seen jiite yëpp ñëw teew ci bis bii te xam ne lii kat amul lu ko gën a ëpp solo ndax suñu boroom mi ngi wax ci xadis di wax ne am na ci jataayu alxuraan yoo xam ne bu malaayika yi ñëwee dañuy wootante ñoom ñëpp ba ñëw fekk ci bërëb ba nee na bu ñëwee ba dollu ci ba dellu ci seen borom ñu wax ko ñun kat fa ñu nekkoon mooy bërëb boo xam ne dañ doon fàttalante ci seen boroom di jàng ay aaya alxuraan sun borom ne leen jéggal naa leen ab képp koo xam ne ma nga fa teewoon kon ñi ñaan suñu bat jotaay bii yàlla na ko suñu borom bi boole ci jotaay yooyu kàddu yooyu daal lañ ci bëggoon a barkeelu rek di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaye daal ci gàttal daal. mooy kilifay pa kilifay xale yi fi nekk ñoom ñëpp ñu ngi lay sant lii ñuy wax dañ ko wax ci tur Mamadou Sylla Boye ndax tey moom mooy président parent d'élèves yi ci topp waaye di la xamal ne daal ñoo sant bu baax a baax a baax amul benn rëccu amul benn jafe-jafe ci wax dëgg su suñu njaboot bi nga xam ne yii yii yaa nga na ko yoral ci biir ak ci biti danaa def nag benn seede bu tuuti rek ci abo ndax euh, abo beneen affaire ci ñun jamono joo xam ne ji sëñ xaadim ni muy defal lenn ci jàng ci alxuraan booba sëñ abo mi ngi nekk mi ngi fii jàng waaye jamono ju ne mooy sama kër jiitee njàngum alxuraan moom ci kër gi ñu yekk jëm jëmmi jamono rek lu gàtt ñu ne abo dafa am bourse Caire Égypte sëñ xaadim ah mbir am na de ndaxte sëñ abo kat am na bourse wante amul ka amul kayitu juddu amul carte d'identité amul passeport te délai bi gàtt na lool ci gàttal daal ñetti fan yaakaar naa ne la yooyu yëpp yem muy carte kayitu juddu bi passeport bi visa bi ak yi war yëpp loolu nag du njàmbaaru suñu xaadim xam naa du suñu njàmbaar waaye waa waajuram la ndax fu ñu taxa bu ne salaamaaleykum wax wax tuuti rek xamal leen suñu kii nuy toppatoo mi élève bii fii la bokk rek lépp day yomb loolu noo ngi ciy doole am yaakaar di ci lu baax a baax a moom benn seede boo xam ne bi moom rek la ma dem Égypte yu lu bëree bari ci ay mission moom fekke na moom seet na ko jamono ju ne it ma ñëw ci ci hôtel bi suñu euh, euh, suñu euh, aboo day ñëw seeti ma ci Caire Égypte ñu benn bis nag ma toog ministre bi moom mu ñëw fa ci hôtel bi ñu waxtaan ba génn mu ne waa kii sàllal la ma ne kii de sama sëriñ la sama rakk la wax ko daal li ñu mu ne ma lu mu wut si fii ma ne ko day jàng si mu ne ma ah moom alxu arab bi mu wax dafa nekk arab classique lu tubaab bi maanaam arab bu foor a foor a foor tax mu ñëw fii ma ne ko ah day yokk sa xam-xamu ndax ñun Sénégal dañoo am euh, li tubaab di wax euh, crise du diplôme loo mën a jàng jàng jàng ñaari bu ñu ne loo amul sa diplôme ñu ne la il faut nga am diplôme bi loolu xëy na lu ma ko findi mu ne ma kii lim xam bariwul ñu ko xam fii ak ni mu ko waxee te booba bi mu ko ministère bi mu koy wax booba lu ma ñetti professeur université Caire booba ñu ñoo ngi toog mu mel ne kon suñu Xaadim def na jàmbar gu wér a wér a wér waaye moom itam def nañ jàmbaar gu wér a wér a noo ko ci sant di ko ñaar yàlla sëñ Sarr li nga wax dëgg la yàlla bu ko saytaan jiitu yàlla bu fakkastal ñu dañu noo ko ci noo ngi ci dam bu baax a baax a baax di dam ci di ko di ci am fierté li tubaab di wax fierté ah, yàlla yàlla aar la yàlla barkeel la yaa xam fi bëgg yàlla nag fa yëg di sant sa waajur di suñu waajur di kilifa di sant sa mag nga xam ne ñoom itam wax dëgg yàlla kër gi ñooy ñooy kilifa gi Daaru Tanzil waa kër Fallilu Mbakke mooy kilifa gi te nangu nañ ko te rafetlu nañ ko yàlla yàlla aar nu barkeel la ah parents d'élèves yëpp day ñu ngi kontaan ci nu baax a baax a baax di leen damoo Euh, fu ñu toll yàlla yàlla yàlla bu yàlla tas yaakaar ci sa yére ci bàtt jër ngeen jëf. jëf euh, sëriñ Makodde Ndiaye ci kàddu gu jot gu am solo googu wax ko ci turu Paana Def yëpp kon xam naa ki ci tege rek mooy euh, soxna maam Jaara Samb soxna maam Jaara Samb moom it bokkoon ci dongo yi nga xam ne ñi ngi jànge fii ci daara ji mokkale fi alxuraan bind fi téere bi yàlla bi yàlla dogal nag mu wéelaat am njàngam ci wet gi ci des. ba fi ñu toll ab ab banquier la kon ñoo ngi kàdd moom ñoo ngi sàkku ci moom mu ñëw jël euh, kàddu mboolem ñu jaaroon ci daara ji ñëpp moom la ñuy sàkku ci moom mu jël kàddu ji moom soxna maam jaara sàmm kon soxna si ñoo ngi lay xaar sëriñ Xaadim nag nee na mi ngi sant bu baax di ko seereel mbooloo mi alhaaji Modou Mbaye mii toog nee na daal alhaaji Modou Mbaye day mu nga jóge ba Louga ñëw fekke si jataay bi te it nag diggante mag moom it nee na mi ngi leen koy seeral ni daal lu sore la ci di moom lu sore la ci moom jàpp na ko bu wér a wér lépp lu muy yëngu rek su geesoo dana ko gis fu mu ko soxlaa it waxtu wu mën a doon rek dana daal di bàyyi ay yitteem barki dem bi muy dem Touba ci sëriñ Mountakha rek daa daal di bàyyi yitteem yépp ànd ak moom kon daal nee na mi ngi koy seeral mbooloo moom it di rafet rafetlu ab jataayam kon ñu jox euh, soxna maam jaara sàmb mu jël kàddu ci turu mboolem ñi jaaroon ci daara bi bu jàllee nag incha allah taala ñaari kàddu rek moo ñu dese ñu ñaari kàddu rek moo ñuy ñu yëkkati jotaay bi. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp euh, di leen ziar di leen baalu àq ñu wax ci turu ressortissant yi fi génn rek ah, mënuñu wax sax dañuy jéem rek wax ci aslëf ndax nee na ki la jàngal moom mënoo ko fay ndax euh, man fii laa jàngee sëñ Xaadim moom ma jàngal boobu maa ngi nekk tout tànk ñu ngi commencé woon fële unité 13 woon français bi ak alxuraan bi di def double flux moo amoon temps yooyu bu ma jàngiwul français dem jàngi alxuraan vacance bu école tëjee tamit ma continuer di dem jàng alxuraan di def noonu di def noonu ba yàlla def ma wàcc continuer ak moom ba bind kaamil continuer ba jàng téere xam-xam yu bari euh, ma koy sant ci loolu bu baax di wax ni aw ma benn yoon di wax ni rek jàng alxuraan teewul boo génnee nga bëgg a nekk li nga nekk ndax yépp ambition la nit boo amee ambition rek loo bëgg a atteindre di nga ko atteindre te yàlla def ni maa ngi liggéey maa ngi ci benn microfinance di liggéey kon loolu yëpp ak cant la euh, maa ngi sant euh, di yokk wax ak sunu doom yi fi nekk ak sunu jarbaar yi ak suñu rakk yi di leen wax ñu gën a góor góorgóorlu xam ni alxuraan kenn amul fayam ki la yëkkati indi la ci daara pour nga jàng amoo fayam tey ji sama papa mi ma indi woon fii li yëpp fekkewu ko maa ngi soog a xam lépp li ma bëggaloon tey laa koy soog a xam te bëggoon naa tey mu fekkee lii yëpp bànneex bi yëpp bëggoon naa mu fekkee ko waaye may sant yàlla sunu borom moo def li ko neex di ko ñaanal yàlla fi mu jëm gënal ko foofu fi mu jóge tey sunu doom yi fi nekk ñu ngi leen di e, wax ñu gën a góorgóorlu wax leen ni waajur bu jël doomam indi ko ci daara bëggul dara lu dul lu baax léeg-léeg nit ki danga naan sama doom dama ko yóbbu ci daara ñu naan la danga néeg ak da nga amoo yërmande fekk na du loolu da nga ko bëggal avenir bu baax rek waaw kon sunu ndongo yi fi nekk ñu ngi leen sant di leen wax ngeen gën a góor góorlu bu baax xam ni seen waajur yi fi nekk amoo leen seen fay ku ci nekk mën nga góor góorlu ba heure boo paree li nga bëgg a def di nga ko def jàng daara mënul tere kenn bëgg bëgg bañ a nekk li nga bëgg a nekk au contraire dafay gën a tax sax li nga bëgg a nekk yépp ndax alxuraan bu jiitoo ci yow rek euh, lépp loo bëgg day yomb kon ñi ngi leen di sant bu baax ngeen gën a góorgóorlu euh, gën a teg seen tànk xam ne alxuraan rek muy dëgg moom muy mujjit waaw seen Xaadim Njaay ñu ngi lay sant bu baax a baax dañoo mënul wax nag mënuñoo wax dañoo <laughs> forcé pour ñu ñëw wax mais ñu ngi leen di sant bu baax a baax wax dëgg yàlla amuñu seen fay daal daara ji nag ñu ngi ñaan yàlla ñu parce que daara ji xam naa ne laaj na ay ndimbal bu baax a baax ñu ngi woo boo bon volonté yi ku ci am loo ci mën a jàpp rek nga jàpp ci ndax sëñ xaadim mii euh, bëggal nañu ko makkaanu boppam wax dëgg yàlla location bi dafa metti chaque mois ngay fay metti na trop su doon suñu sago daal ñu wutal ko foo xam moo koy moomal boppam ba xam ni location dina ko wàcc loolu daal mooy suñu yéene ñun tey wax dëgg yàlla am nañ yéene bu bëri ci daara ji doole gi mateewu ko ne mais suñu yéene moom ëpp na lii daal wax dëgg